di ko defee fii ci jumaa Touba weer wu nekk fii ci sow bi mbedd mi jàkkaarloog alaaji tali alaaji Babacar Kebe njuga toog fi nag ci ndigalu fadilatu Cheikh Mouhamadoul Mountakha ngir seenu weer wi xibaar buñ ci am ñu jox ko ko mu joxe ndigal li ndigal li nag jëm ci ki nga xam ne mooy sëñ Mouhamadou Mamoun mi imam bi ak sa sëñ du Diop ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk rawatina waa daara Muxaddamatul Xidma ki ko baaxoo nag euh, ubbil saa su nekk muy suñu mag di suñu xarit Cheikh Mamadou Fadal Sylla mu ngi nii toog yegsi na kon dañ koy jox kàddu gi bu ko defee xibaar boo xam ni jóge na si suñu kilifa yi rek àddina bi yëpp yëgandoo ko sëñ Fallou bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi nga xamante ne bii ñoo baaxoo di bàyyi xel. Euh, commission bi nga xam ne mooy commission séntu weer wi. bi nga xam ne ngi sosu woon ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Salif Mbacké yàlla ko fi yàlla gën a yàggal te gën a dolli ak wéram mu tànnoon Serigne Mouhamadul Mamoun Bousso jiital ko ci faboon Serigne Abdou Diop mi nga xam ne mooy jiite ci jàkka ji ne ci biir këram toftal ko ci mu kàddu gi ñu boole ak waa daayira mu xadamatul xidma ak ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu séntu weer wi di ku mel ne Serigne Bassirou Mbacke mu Serigne Abdoul Khoudous nekk ca Daarul Monti waaye ku mel ne Serigne Modou Mbacke si mi nga xam ne moo jiite représentant xalif général des mourides yi nekk ci région yi waxtu wu ne dana jokkoo ak région yi waaye danañ jokkoo itam nag ak commission bi nga xam ne moo féete Dakar lépp loo xamante ne bi tënk nañ ko rek euh, suñu noppee dañuy jokkoowaat ak Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha dañuy jokkoowaat ak Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa su ko defee nag ndigal lu fa bàyyikoo nag mooy dellu siwaat ci commission bi su ko defee bu baax Serigne Moudou Mamoun dana yëkkati kàddoom jox ko Serigne Abdou Diop mi nga xam ne mooy wax ci turu commission bi mu jottali ko ñu fàttali bokk yi tey jii la gaawu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru baraxlu di séntu bu njëkk ci weeru koor ñu fas yéene àndandoo ak bokki julit yi ak bokki taalibe yi euh, taataan kàddu yi nga xam ne mooy bàyyikoo ci Serigne Abdou ni mu koy defee saa yu noddee dana dem ci rajo jumaa ji wax ne sëriñ bi nee na nañ maase séentu weer wi te ko ci xam lu wér nga ñëw yëgle ko suñu noppee danañ ànd ak waa daayira Muxaddamatul Xidma ñëwaat ci buntu soow bi jàkkaarloog tali alaaji Babacar Kébé Ndiouga yàlla na suñu borom dolli ngërëmam ak yërmandeem su ko defee lu fi ruusa nag sëriñ Abdou Diop dana ko jottali bokki jullit yi ak bokki taalibe yi kon ndigal bàyyi koo waat na ci sëriñ Touba Cheikh Mahamadoul Mountakha ñu déglu kàddu yi bàyyi koo ci sëriñ Abdou Diop asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala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 waa commission Dakar bi sax yabal yable nañ fi te ña nekkal ña leen te nekkal foofu it téléphoné nañ leen wax ne ni ñu ko gisee fii noonu lañ ko gisee foofu kon ñu xam ne kon ci ndigal sëñ Muntaxa ci la ñuy waxe ndax ñu ko gisee ak lu mu leer leer ci noonu faaw danañ dañ dañu dañuy jokkoo ak moom ba ba ba mu joxe ndigal ci ne na am joxe ndigal gi ne jubluwu jubluwu ci loo xam ne day saytu ne rek man maa maa yor ndigalul weer wala yooyu waaye ci ci li ñuy séentu ak nan koy waxee ak xibaar yan koy jox ca loolay sukkandiku ba joxe ndigal ci waaye kilifa kenn du ko jiitu moom rek moo moo sañ a wax moo sañ a wax ne weeru feeñ na nu door cee topp kon ñu xam ne loolu am na kon noo ngi ñaan yàlla ci sëriñ jërëjëf sëriñ Touba weer wi woyof lool ci nun da ànd ak xéewal ak jàmm ak sutura ak teraanga ci dara ji sëriñ Touba te sëñ Muntaxa yàgg fi lool te wér waaw ba li mu yéene ci yoon mu àggale ko ba ba sosaat leen ànd ko moom ci dara ji Serigne Touba wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu aladul xadim Diop imam waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatu kon mbokk yi ndigal laa ngi noonu muy ndigalu sunu borom subhaanahu wa taala bokk ci juróomeelu ponk lislaam yi di ñaan nag ni ko sëñ Abdou Diop waxee léegi ci ndigalu sëñ Mouhamadou Mamoun Bousso ñu tàmbali ko ci alhamdulilahi rabil alamin ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabil alamin li ci sëñ bi dagaan lépp itam yàlla defal na ko guddi gi nga xam ne itam moo gën junnee weer nekk ci biir weeru koor bi yàlla yeggale nu ci ñu dundal ko ci jàmm ba weesu ko ci jàmm naajeytu rabbiya bi chahri ramadan chahri lamaani wal muna wal fayadaan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñaar fukk ak juróom-ñaar ñaar fukk ak juróom-ñaar yi nga xam ne moom maanaam. nga xam a koy ànd ci bokk ànd waaw waaw waaw maanaam bëccëgu ñaar fukk ak juróom benn bi lay doon di guddi ñaar fukk ak juróom ñaar jur ñaar ji nga xam ne alxames lay doon guddi ga di ajjuma kon ñu xamee ko noonu xam ne lépp lëleetu xarit daa dëppoo moom far lépp ña ko caa def ci ñoo ñooyam benn nag mi ngi noonu kon mi ngi noonu gëneen xéewal amaan na ci ndax xam ngeen ne guddi <laughs> am na nag ñoo xam ne dañoo saxal ci dàkk ga bëccëgu ñaar fukk ak benn ak di guddi ñaar fukk ak juróom ñaar muy kon mu mel na kazu ramadan